non xam nga monsieur le maire Mouhamadou Mansour xam nga àdduna déedéet boo waxee ni dañ ko xam euh, dafay wax lii moo tax man maire bi ma ko dee xam boobu xaajagul woon nekk maire. mais est-ce que du relation. non question Mansour sama relation sama xarit la sama grand la parce que moom mooy maire commune de saint je suis le président du conseil communal de la jeunesse maanaam moom dañu war a ànd liggéey pour benn objectif pour objectif développement wu ndaw ndar yi parce que le conseil communal de la jeunesse notre premier partenaire c'est le maire c'est la commune tey ku nekk sa premier partenaire da ngay réeroo ak moom ku nekk sa partenaire da nga war a da nga war a da nga war a da ko war di daw non il faut les gens arrêtent Mansour nit ku baax la nit ku yaru la nit ku jox nit ñi cër la te gis nañu wax dëgg yàlla su may wax tamit damay wax dëgg xëy na question boobu peut-être posé woo ma ko mais du ma si mën a sore mais li si mën a sore mooy question bi nga ma demandé mooy relation bi ma am sama grand la sama relation la sama xarit la sama lépp la te nit ku baax la nit ku yaru la nit ku ma respecté la nit ku ma fonk la te ku la jox cër dañ koy delloo cëram yàlla moo dogal moo sunu maire man mi nekk Saint-Louis dëkk dewuma Dakar dewuma bitim réew dama koy ñaanal yàlla liñ ko dénk mu am si une réussite parce que yàlla dogal na ku war a nekk maire deux mille vingt deux ak ku ko warul nekk bu dee moom moo gën si Saint-Louis yan na ko yàlla def bu dee moom gënul si Saint-Louis yan na yàlla jox ki gën si Saint-Louis mais quand même c'est notre maire dama koy encourager sama relation ak moom nit ku baax la nit ku am yar nit ku may jox cër la delloowaat naa ko cër boobu ndax yaram ak teg ak fonk bi ma fonk